mbokk yi imam na alhamdulilah ñu ngi yàlla moom mi ñu may ñu fekke haat bés bii nar a liggéey boo xam ne bàyyi ma ko fi bàyyi liggéey boo xam ne bàyyi radiyallahu anhu moo ko fi bàyyi. xam ne amul benn sikk ne ngërëmam rek moo ci nekk. nga xam nga xam ne amul benn sikk ne ngërëmam rek a ci nekk. moom rek lañ ciy wut itam. moom rek lañ ciy wut itam. ndax xam nañ ne bu gërëmee. ndax xam nañ ne bu gërëmee. suñ lépp xéwén. suñ lépp xéwén. suñ zaahir dana xéwén suñ baatin dana xéwén. suñ zaahir dana xéwén. suñ baatinit dana xéwén. suñ tey dana xéwén suñ ëllëg dana xéwén. suñ tey dana xéwén suñu ëllëgit dana xéwén moo tax bis bii mooy bis sëriñ bi waxoon ne nañ ko jàpp pour commencer bi bés bii mooy bés bi sëriñ bi waxoon ne nañu ko jàpp pour commencer ko njàngum kaamil mi ñaar fukki fan ñeent ci weeri avril tey muy ñaar fukki fan ak ñeent ci weeri avril tey fan ak juróom ci weeri tolloo fukki fan ak juróom-ñett ci weeri baraxlu démb wax nañ ci guddi démb imaam na wax nañ ci guddi mu ne nañ ci ayna lii bàyyi woon rek mu ne nañ ci ayna li bàyyi ayna woon rek te yokk ci yu bees ci pay bi ci ay soxla te yokk ci yu bees ci pay bi ci ay soxla waaye nag terewul kenn ku nekk itam say soxla mën nga koo teewal ay nagu waaye nag terewul kenn ku nekk itam say soxla mën nga koo teewal ëy ne ko ndax yàlla moo gën a yaatu loolu yëpp ndax yàlla moo gën a yaatu loolu yëpp xam ngeen ci ñu ngi ñaan di def tawasul ci baay ñu ngi ñaan tey def tawasul ci baay di def tawasul ci alquran ñu nar a commencé di def tawasul ci alquran bi ñu nar a commencé commencé ci benn ba ci lu amul limite commencé ci benn ba ci lu amul limite ci ay naam moom Baye radiyallahu moom Baye radiyallahu anhu ci ay naay xalifa bi fi nekk ci ay xalifa bi fi nekk ci yi nga xam ne yees na fi gannaaw bu Baye bindee ayna yi ci yi nga xam ne ees na fi gannaaw bi Baye bindee ayna yi ak su ayna ñun ñëpp ñun ñëpp yàlla defal ñu ko yàlla defal ñu ko te defal ñu jàmm ci madina gi te defal ñu jàmm ci Medina gii yaa Rabbi. defal ñu jàmm foo xam fépp foo xam ne taalibe bàyyi nga fa. defal ñu jàmm fépp foo xam ne taalibe bàyyi nga fa. defal ñu jàmm fépp foo xam ne ab jullit nga fa. defal ñu jàmm fépp foo xam ne ab jullit nga fa. moo tax fépp fu taalibe nekk tey. moo tax fépp fu taalibe mën di nekk tey. bu ñu commencé tey. bu ñu commencé kaamil yi tey. yow itam mën ngaa door. yow itam. mën ngaa door. ci ay na bii ñu ay na rek. ci ay na bii ñu xëy na rek. lim bu ci nit am ak foo mën a toll ci àddina. lim bu ci nit mën di am. ak foo mën di toll ci àddina. jokkoo bi jafewut fi ne. jokkoo bi jafewut fi mu ne. soo jokkoo sëriñ daara cheikh bi tey. soo jokkoo sëriñ daara cheikh bi tey. dana ko jël. dana ko jël. boo ma jokkoo man mii dinaa jël. boo ko jokkoo moom mii di imaam. dana ko jël. boo jokkoo alfayda danañ ko jël. boo jokkoo alfayda it. danañ ko jël. boole ko ci lim bi nga xam ne moom lañ jàng. boole ko ci lim bi nga xam ne moom la pays bi jàng. dafay dalal xel. dafay dalal xel na ndax dana la wóor ne def nga loo xam ne bàyyee ko samp bàyyee ko bëgg. ndax dana la wóor ne yow def nga loo xam ne bàyyee ko samp te bàyyee ko bëgg it. ngërë ngërëmam lañ ciy am. ngërëmam lañ ciy am. mooy aajo bu mooy aajo bu njëkk ba. yeneen aajo yi dafay topp loolu rek. yeneen aajo yi dafay topp loolu rek. yal nañu ko yàlla may ñun ñëpp. yal nañu ko yàlla may yaara bi. ci barkeem ci barke alquran. ci barkeem ci barke alquran. fu nit toll ci biir senegal fu nit mën di toll ci biir Sénégal. ci biir Gambia. ci biir Gambia. ci biir ci biir Mauritanie. Mali. Mali. Burkina Faso. Burkina Faso. Côte d'Ivoire. Niger Nigeria. Nigeria. Ghana. Ghana. ba ci misra ba ci misra ba ci américa ak europa ba ci américa ak europa fu ci nit toll rek fépp fu ci nit mën di toll ci àddina bi mën ngaa jàng lim boo am joxe ko mën ngaa jàng lim boo am joxe ko yaakaar nañ ne yaakaar nañ ne addina bi yëpp mën na cee xewene addina bi yëpp mën na cee xewene lislaam itam mën na cee amee ndimbal lislaam itam mën na cee amee ndimbal taalibe bàyyi itam mën nañ cee amee xususiya boo xam ne yàlla daf leen koy jagleel taalibe bàyyi tamit mën na cee mën nañ cee amee xususiya boo xam ne yàlla daf leen koy jagleel yokku ci liñ am yokku ci liñ xam nag ndax am nañ ko ba pare ndax am nañ ko ba pare waaye lépp loo xam ne nekkut di yokku dafay wàññeeku waaye lépp loo xam ne nekkut di yokku dafay wàññeeku tax ñu bëgg daa iman rek di yokku looloo tax ñu bëgg daa iman rek di yokku ndax ñu am kóllëre ne ndax ñu am kóllëre ne delluwuñ gannaaw delluwuñ gannaaw benn yoon ñu jàng ayna bi kon ñu jàng ayna bi tasaare kaamil bu njëkk bi tasaare kaamil bu njëkk bi waylaa macha allah jéem ci la yàlla soob nag waylaa macha allah ñu jéem ci la yàlla soob nag jéem ci la yàlla soob jéem ci la yàlla soob jéem ci la yàlla soob nag ci lim ci lim amul benn lim bu bàyyi wax ne lim bii la amul benn lim bu bàyyi wax ne lim bii la waaye gis ngeen ne at mu jot dana yokk te gis ngeen ne at mu jot lim yi dana yokku. mbiram nag noonu la tëddee. mbiram nag noonu la tëddee. bisimilah. bisimilah. voilà jërëjëf mbokk téléspectateur Kossy TV ñu ngi am beneen yoon mbégte ak contentement si ànd bu rafet bi nga xamante ne waxtu nekk yéen a ngi ko ànd ak ñun fi nga xamante ne moo nekk fii si juma Mawlana Cheikh Ibrahim di gërëm bu baax a baax imaamul akbar imaam Cheikh Tidiane Aliou Cissé si ubbi gi kaamil gi nga xamante ne nii mu ngi ko ubbi kaamil gi fii si Medina Baye dëgg-dëgg mu nekk euh, loo xamante ne ni Mawlana Cheikh l'Islam Alhaji Ibrahima Niass Baye moo ko fi indi mu nekk waaye nag di gërëm xalifatul am Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahima Niass yàlla fi yàgg te ànd ak wér yàlla suñu borom yàggal ko fi may ko fan bu gudd bu ànd ak wér lii lañ indi woon li nga xamante ne nii moom leen doon doon indil si eh, kaamilu Medina Baye gis ngeen ne fii si jumaahu Medina Baye ànd ko ak kilifa yi Cheikh Abdoul Malick gis ngeen ni ñi nga xamante ne imaam si Mor Cissé gis ngeen eh, Cheikh Tidiane Baye bi tey moom mi nga seen daara Cheikh bi tey bi nga xamante ne moo jiite kaamil bi gis ngeen eh, ñi nga xamante ne ñoo ajowoo si Medina Baye ak njabootu Mawlana Cheikh Lislam Alaaji Baye ñëpp rek teewe te كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة لهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وهم بمؤمنين خاضع الله ورسوله خاضع الله ورسوله ويشعر في قلوبهم مرضا فزادهم الله مرضا أتصل ذلك قالوا إنما نحن مسلمون sant yàlla bu baax moom mi ñu may ñu fekkaat bis bii fekkaat ko pour tàmbali liggéey boo xam ne bàyyi moo ko baaxoon di ko def muy sunna bu baax muy jàng alquran amulu koon nag benn lim wala benn limite waaye sunna la boo xam ne rek dana dugg ci waxi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi nee na man sanna sunnatan xasanatan fa lahu ajruha wa ajru man amila biha ila qiyaami saa wa man sanna sunnatan sayyiatan fa lahu wizruha wa wizru man amila biha ila qiyaami saa yonent bi nee képp ku sunnaal sunna su rafet danga am xiw wa da nga am xiwi képp koo def sa gannaaw mu ne safaan ba tam noonu boo sunnaalee lu bon danga am bakkaar ba da nga am bakkaar képp koo def sa gannaaw lii nag sunna bu rafet la boo xam ne bokk na ci yi fi bàyyi bàyyi ñaanoon na yàlla moom ne mu ngi ñaan yàlla yàlla def wattu téereem bi di karaamaam moom yàlla daa chëkk ne yàlla defal na ko ko defal na ko ko ci boppam defal na ko ko ci njabootam defal na ko ko ci taalibe yi ak ñu ànd ak moom ñëpp ak ñëpp ñu ko xam ba nga xam ne tey sunna woowu ci lañ del seet benn ci sunna yooyu ci lañ del seet mooy alxuraan yi nga xam ne daan na ko jàng jàngalu ko ci jumaa ji ak fu mu nit mën a nekk ci Medina lettre bi mu bind Seydi Ali di ko wax eena bi mu ngi nekkoon 1967 wala 66. 66 mooy ci la bind xat mooy waaye njëkk loolu nag daana def ay xatamaat yoo xam ne dafa ànd ak ay nit gannaaw gi nag ci loo ko yaxal ni ñu di ko def fii ci jumaa ji niñ ko daan defee mooy kër gu nekk rek ak daara ju nekk dañ daan def indi sa lim man maa ngi fàttaliku bi ñu ko fii def ci at moomu ak nit ñu indee ñun ñu ci daara ji mu bàyyi fi. ñu door ko fii ci jumaa ji ak moom boobu ba léegi nag yàlla mu ngi ci wane ngëneelam ak nangu gum nangu ñaanam yokk lim bi di yokk daa iman ci yokk koo xam ne sax raw na xel romb na itam fi ne Madina romb na senegal mu ngi dem ci mbooleem foo xam ne Baay am na fa taalibe tey ci àddina rek jot nañ ndigal lii ne mën nañoo tàmbale suñ tàmbalee fii muy ci Gambia muy ci Mauritanie muy ci Nigeria muy ci Ghana mu ci Mali mu Côte d'Ivoire mu ci Burkina Faso mu ci Tchad ba ca Soudan ba ca Misra ak Europe foo mën di nekk tey loo am ci lim rek commencé ci benn ba soob yàlla mën nga oote joxe ko wax naa sànq ne boo oowee Serigne Daara Cheikh bi tey ci 221 77 35 vingt 25 lim boo ko jox dana ko noté boo ootee Alfayda itam numéro 77 559 55 77 ñoom itam dinañ ko jël man mi itam suñu ooyee 77 638 26 44 danaa ko jël boori Nigeria itam ñi fay oote buñ jotee laaji di dawra ci 77 441 62 26 moom itam dana ko jël joxe ko fii la nga xam ne fii la ko a joxe lay jógee Mauritanie itam numéro yaa ngi noonu lay jógee feneen ak fu mu mën doon numéro yaa ngi noonu matal nañ ko ngir yàlla matal yërmandeem ci taalibe yi matal yërmande itam ci mboolem jullit ñi bàyyi lim ci wax ni yëpp amul ci lenn loo xam ne soxlaay boppam la lépp rek soxla la buy dellu ci lislaam walla mu dellu ci jullit yi wala muy dellu ci réew mii ñu dëkkee muy senegal walla muy dellu ci ñi ànd ak moom yàlla may leen ngërëmam lu màgg la ci diine ak ci àddina kon nag moom dafa ñoo defaral rek ba pare bàyyi ñu ko loo xam ne daf ñuy yokk ci zahir dañuy yokk ci batin ñu ngi gërëm nag alfayda bu baax li taxoon ma bëgg ngeen teew sànq ndax tey fu taalibe mën a nekk rek dana dégg wax ji dana dégg ne ubbi nañ kaamil yi ñu mën a door ñoom itam te yonent bi waxoon na ne ku teew na jotal ku fàddu wax naa ne loolu rajo moo ko gën a mën tey waxoon na ne itam képp koo xam ne jotal nga nu na nga ni ngeen jéem jotal li la benn aaya sax jëlee ko ci man lii nag du benn aaya kaamil la bu mat ñu commencé ci benn ba ci la soob yàlla yal na yàlla nangul ñu te nangul mbooleem taalibe fu ñu mën a nekk lim buñ ci am itam yal na ko yàlla nangu yàlla na ko def ci misaanu amali Mawlana Cheikh Islam Cheikhul Islam Alxaaji Ibrahima Niass ak ci misaani toppam ak itam lépp loo xam ne moom la ci eenoon yàlla na ko yàlla def lépp loo xam ne moom la bëgg itam ci dëkk bi ci diine ji ci tariq bi yàlla na ko yàlla def ci fayda bi yàlla na ko yàlla def lépp loo xam ne itam moom la bëgg ci njabootam yàlla na ko yàlla defal lépp loo xam ne itam moom la bëggoon ci ñi dëkkee Medina yàlla na ko yàlla defal ndax ñi dëkkee Medina ñooy ay dëkkandorom am nañu chance nag bu baax a baax yàlla may na leen dëkkandoor bu màgg a màgg màgg màgg yàlla nañ ko jëriñoo salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu jërëjëf mbokk téléspectateur Kossy TV gis ngeen li nga xamante ne moo nekk ubbite kaamil yi Medina Baye waaye nag njabootu Mawlana Cheikh Ibrahim ngi teewee ko mu nekk lu xamante ne nii dëgg-dëgg taalibe yi ñu ngi ko seen en direct si Facebook bi yan kàddu nga am tey pour ñaaxal ko taalibe yi ak ñaan yàlla taalibe yi alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ñu ngi sant yàlla bi ñu yàlla may ñu teewee ubbite kaamil yi nga xam ne Mawlana Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu anhu santaane woon ñu koy wàcc at mu jot ci yéene yi nga xam ne ay yéeneem la woon comme ni ko déggee ci ndigali sëriñ bi euh, alxalifa Cheikh Ahmad Tidiane Niass mattaana allahu bi baqaayi yàlla guddal fanam wéral cëram ci làmmiñi Cheikh Ahmed Tidiane ibn Ali Cissé al imam mu ne sëriñ bi wax na ne yéene yi nga xam ne moom la bàyyi yéene woon pour euh, kaamil yi nañ ci yokk yi nga xam ne bees na ci dëkk bi ci gannaaw bàyyi yéene ci tamit mbooleem suñu aajo ñaan yàlla mu fajal ñu ko ñu ngi commencé kaamil yi tey ci àllarba ji or ko jàng tey ak suba ba ajjuma gannaaw julli juma lañ koy tëj kon ñu ngi ñaan yàlla lépp loo xam ne yéene nañ ko ci yàlla na ko yàlla dëggal lépp loo xamante ne ni ñaan nañ ko ci yàlla na ko yàlla nangu lépp loo xamante ne ni Cheikh Ibrahim yéene woon na ko ci yàlla na ko yàlla dëggal yu bees yi nga xam ne yéene nañ ko tamit yàlla na ko yàlla dëggal yàlla ñu ci lijaaba loo xam ne dañ ci teg suñ bët di yàlla yàlla dëgëral suñ kilifa yi yàggal leen fi wéral seen cër guddal seen fan di ñaan yàlla mu dajal barke mbooleem topp Cheikh Ibrahima Niass radiallahu anhu fépp fuñ mënti nekk ci àddina di yàlla mu dajal jàmm fépp foo xam ne julli tëng fa di yàlla mu def jàmm ci suñu réew fii ci Sénégal def ko ci Afrique def ko ci mbooleem àddina yàlla na yàlla saxal jàmm te yàlla na ko yàlla tasaare yàlla na yàlla dimbale jullit ñi yàlla na yàlla dimbale jullit ñi yàlla na yàlla dimbale jullit ñi yàlla na yàlla dimbale suñu mbokk yële ca Palestine yàlla na yàlla delloo leen seen suuf si te yàlla na yàlla delloo leen baytal maqdis yàlla na yàlla dimbale jullit ñi fépp fu ñu leen di notee yàlla na leen fa yàlla defal doole ju bëree bëree bëri yàlla na yàlla naatal suñu réew yàlla na yàlla barkeel barke suñu njaboot barke suñu yëngatu barke suñu dal barkeel képp koo xamante ne ni mi ngi sàkku ci ñun ñaan lépp lu muy sàkku yàlla na ko yàlla defal bi jaay rasulullahi salallahu alayhi wasallam yàlla nañ yàlla nangul ñaan alhamdulillah ñu ngi sant yàlla lu bari ci alquran ñi ngi sant yàlla lu bari ci weeru koor wi nga xam ne mi ngi jege si ñi ngi ñaan yàlla tamit mu may ñu ñu fekkee ko ak jàmm te buñ ko fekkee yàlla ñu may kàttan guñ ko ooree te buñ ko ooree tamit yàlla ñu yàlla nangul suñu koor weeru koor ci la alquran wàcci weeru koor fii ci Medina bàyyi ci la ñuy amalee concours alquran boobu nga xam ne xalifa bi moo ko sos depuis juróom-ñaari at ci kanam moo ko ŋànk moom ak rakkam cheikh Mouhamadul Mahi ibn cheikh Ibrahim Niass ak Seydil Imam cheikh Ahmad Tidiane ibn Seydi Aline Cissé ñoom ñooñu ko dénk pour ñu ci liggéey ñu ngi sant di gërëm képp koo xam ne dugal na ci loxoom ci at yi wees di ñaan yàlla yàlla na ko cheikh Ibrahim yadduuna ila alxayri wa yaamuruuna bilmaarufi wa yanhawna anil munkar وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. أبا تأمين كونتان تماما باخ باخ شك جل شك فيني رواتينا غنا بن جلي فجر عندك إمام الأكبر إمام شافعي علي وسيسير مو بي بي تساركو جو كوشي نيك ريك لانجي باركيلو باركيلو كو إمام نيان ساني كادو لب سيسير تيواي ñu ngi la si ñaanal yàlla yàlla yokk bu baax a baax yàggal suñ kanam ñu gis la si fegg imaam waxtu wu nekk muy siyaare xaalis di ziar bu mu mënta doon taxawaay bu mu mënta doon ci pays bi rek gis nañ si sa taxawaay gis nañ sa lépp ñu ngi ñaan Mawlana Cheikh Ibrahim mi nga xamante nii moom ngay xidmaal moom ngay liggéeyal mu yàggal la fi loolu bàyyi la suñu kanam dëgg dëgg sa yàgg fi su njëriñ la nda waxtu wu nekk ñu ngi gis yokkute si taxawaay bi nga xamante ne nii yaa ngi koy encadré Mawlana Cheikh Ibrahim bi kaamil bi ñu bëggoon a xam tey cosaan li ak taxawaay bi tey nan la tey jii alhamdulilahi rabbil alamin ngi sant yàlla eh, ñu ngi nuyu mboolem mbokk jullit yëpp ñu mm, fu ñu mën a nekk ci àddina bi ñu ngi leen di nuyu te di leen siyaare ci xéewal gu rëy gii nga xam ne tey comme ni ko waxee cheikh al imaamul akbar imaam cheikh yaana ahmad yaan ubbi ci fajar ci wax ci ngëneel yi nga xam ne moom la ci wax yëpp ak li ko sos yëpp fam dalee ca Maulana Cheikh Ibrahima nga xam ne boobu ñu sax juddooguñ dañoo judd rek fekk lii fekk nañ ñu ànd suñu sëriñ yi di ko teewee ba imaam taxawee ku taxawee bu xem amul lenn loo xam ne tey ci pay baay bii luñ fi tëral ci imaam Cheikh Tidiane Cissé fekkee na ko lu may gis nañ mu yokk ko ci bépp xanam nag ci liggéeyal maamam ci liggéeyal pay bi léegi nag bis ci njàng mi wax na ko ci suba moom nee na ko nee na daara ji sax di ko teewee ñi di ko jàng ba léegi ah alhamdulilah wax na ci ngëneel yi nga xam ne tey moom la tax ak baax bi nga xam ne Cheikh Maulana Cheikh Ibrahima moom la ko sunnaal baaxalee ko mooy ngëneel yi ah, lii wér daal mooy ñu ñaan yàlla nii ñu ko defee nii ak xar yi passé yëpp ci kanam imaam ak xalifa bi ak ñi fi ne ñëpp yàlla nañ ko teewe déwén yàlla nag mu ñu jëf yi imaam nag yaatal na ko façon boo xam ne ren ni muy wax rek mbiram bàyyi daay man fay continuer fay yokkute ndax ren xoo ne àddina bi yëpp tudd leen waaw àddina bi yëpp tudd na leen ci njàng mi ne fu waay mën a jàngee ak foo mën a nekk comme jullit nga xëy na nga xam ne tey moom la ko xëy naay bàyyi bàyyi xëy naayee sosoo ko sosee na ko ñu may na la ci ndigal nga jàngee ko fa yónnee lim boobu ñu boole ko ci lim bi nekk fii incha allahu mi ñaan na si yàlla ne lépp lu si jublu ak bàyyi jublu ko si yàlla nañ ci yàlla yéen ñi nga xam ne tey yéenay positif nag ñu ngi leen di sant ndax amul dara luy xewit lu may fi mu yokk ngeen ko feeñal ko ndax lii imaam wax ci suba gi rek laata ba ñuy tàqale ko ci jumaa ji julli ñi ñëpp gis nañ ko jot ko loolu kat ñu leen ci sant ñu leen ci taxawaay di ñaan yàlla mu yokk te barkeel daa imaam yal na yàlla yokk seen taxawaay yokk ñi nga xam ne tey ñoo koy sos di ko yëngatu muy soxna Haja ak ñëpp ak yéen ñii ñëpp li daal mooy imaam matal na ñaan gi matal na xéene yi kon nag fu waay mën a ne toppal jëf rek ci topp yal na yàlla nangu te yàlla ñu ko yàlla fayal maam barkeel na yaatal na xéene ñëpp boole na ci ñëpp alhamdulilah rabbil suñ bàyyi suñ maam suñ papa suñ lépp di ko ñaanal yàlla moom it mu yàgg fi lool te ànd ak wér ndax moom it bëggul kenn ku dul Mawlana Cheikh Ibrahim te liggéey dul kenn ku dul Mawlana Cheikh Ibrahim toolam ak doxam ak léppam gis ngeen ko mu ngi nii kaamil yaa ngi nii ngeen jàkkaarloo ak moom waxtu bu nekk si lii lay xëy si lii lay ñu ngi ñaan xale yi nga xamante ne nii ñu si daara ji yàlla yàlla may leen ak bokkal yàlla yàlla may leen xam-xam bu sax boo xamante ne nii fa seen maam taxaw tey jii fu ko raw danañ fa taxaw ndax yéen bëgg-bëggam lépp moo nekk tey lépp lu jaar si moom moo ko alxuraan a gi nga xamante ne nii moo la naa Cheikh Ibrahima ñaanoon ko sa alquran ñu ngi koy ñaanal yàlla daara ji nga xamante ne nii mooy sa daara ak lépp daara bu sos fii Medina Baye yàlla may leen karaama gu raw googu noonu kontaan nañ bu baax a baax asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu jërëjëf macha allah ñu ngi am mbégte ak contentement ñi nga xamantene ne ngi topé ci ñun ci walu kamel yi nga xamantene ni medina Cheikh Ibrahim waxtu wu nek rek ñu leen ko defee mercredi jeudi vendredi di àllarba alxames aljuma ñu fassiyene def ci kamel yo xamantene ni at mu jot sunu su refet so xamantene ni molana Mawlana Cheikh Ibrahim moo ñu ko andil deug deug nak ñu commencé won ci ndek yi jiyee ko ci imamul akbar imam Cheikh Tidiane Aliou Cissé ñi nga xamantene non lu ubbee kamel yi ñu ñëw si ndëkk yi tey nag ñu ngi waat fii daara ji daara yi nag suñu ndëkkee fan la ñu ubbee mooy daara Cheikh Mouhamadoul Mahi Aliou Cissé mi nga xamante ne moo nekk porte parole kër gi dëgg-dëgg ñu bàyyi leen ak euh, oustaz bi nga xamante ne nii moom la ànd ak xale yi ñëw mu fas yéene nuyoo wax ay kàddu yi nga xamante ne moom la fas yéene yëkkati si barkeeloo si alxuraan ji bismillahi arrahmani arrahim wasalaatu wasalaamu ala sayidina muhammad sallallahu alayhi wa xamdan liman ma astu la attakilu illaa alayhi alxabada almutakalu euh, mbokk yi ñi ngi nuyu ñëpp di ziyaara ñëpp euh, ci turu daara jinu nu ko muy daara Cheikh Mahia Alioune Cissé di nuyu waale tamit ki ñu fa euh, bàyyi ki ñu jox ndigal ñu ñëw fii Cheikh Mahia teg ko sunu kanam mooy Seyda Kobra Cissé di leen ñaanal ñoom yàlla defal leen gudd fan ak wér yàlla defit jox leen ci yiw alquran bi ñuy jàng tey ak euh, yàlla defal leen euh, wér-gi-yaram ak gudd fan incha allah xam naa kon sunu kàddu du gudd comme dañu commencé woon ak kaamil bi léegi euh, dañu ànd ak sunu daara ji lu la bëgg a présenté leen ci xale yi nga xam si moom lañ àndal jox la ci yenn xale yi ñu jàng alquran waaye jox la ci yenn xale yi ñu wax seenu kàddu ak seenu ak seenu mbégte ci bis bi nga xam si ne nii bisu mbégte la rek waaye bis la ba nga xam si nii Euh, alquran rek wax dëgg yàlla moo mën a euh, def lii dajale mbokk sëriñ daara yëpp nga dikk fii nii fekk leen fi ñu nuyoo waaye dajale donga yëpp ñu dikk xamante lii rek wax dëgg yàlla ñu ngi sant yàlla di euh, ñaanalaat Cheikh ma Cheikh yàlla yokk ay leeram incha allah ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa xam naa ko dañ lay présenté kenn ci xale yi ku nga xam si ne nii américain la muy Rahma Majid dañ la koy jox incha allah mu jàngal la lenn ci ay ayat alquran incha allah.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 يأتي رشدي فآمنا لي ونشكى بربنا أهلا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأن ظننا أن لم تدخل الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبط الله أحدا وأنا لمسنا السماء فواجدناها مليت حرس شديد وشوبا وأنا كنا نقود منها مقاعد لسمعي فمن يسمع أنا أجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري يسر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قدرا وأن ظننا أن لم ندخل سر الجن وعلى الله كذبا waaw kon eh, kok kenn la ci dongay yi nga xam si ne ci fale ci daara ji lañu di jàng pour jéem a wattu alquran mu ngi tudd Rahma Majid kon dan lay jox eh, kenn dañ lay jox kenn dañ lay jox kenn ci xale yi tamit eh, nga xam si ne nii moom tamit sénégalais la dëkk ci dëkk bi mu ngi tudd Soxna alhamdulillah that I'm going to Sheikh Mahi School because they help me study really well and I'm studying a lot of Quran so far. I've done three concepts and to be about learning all these other students and I'm having a really great time. tey ñu fekk la fii tey ci eh, kaamil yi nga fas yéene jël ay kaddu waye nga nuyo ko Cheikh Mouhamadul Mahi Aliou Cissé wati mi ngi nuyo ko tamit seen yaay seen Zeyda Seydatu euh, Zeyda Kubra en kaddu nga am tay bu fekke fi ni wa assalamu alaykum wa rahmatullah wa Seyda de mo wax deug yalla ciantam buñ koy wax duñ fi jugge parce que mom ku bax la mu ñuy taxaw ci daara ji alcorane biñu am yépp mënoon nak see baña fekk na jàng mo len fi indi mais deful lol lepp lu bax mu ñu koy defal. Cheikh Mahi tam wax dëgg yàlla ñu ngi koy sant bu baax a baax di ko gërëm parce que loolu Seyda bu koy def moom moo koy may doole ñu ngi koy sant bu baax a baax di leen gërëm daal ñoom daal seen fay amuñu ko buñ toogoon fii di leen cant moom duñ fi mos jugee Seyda suñu yaay la suñu lépp la taxawoo ñu ne comme yaay ku fi ñëw sax da foog ni moo jur ñu ngi koy sant bu baax a baax di ko gërëm ak Cheikh Mahi yi. jërëjëf euh, mbokk téléspectateur euh, Kossy TV si noonu rek la ñuy wéyalee rek wàllu liggéey bi lii rek li ko waral rek mooy gën a ñaaxaat doomu Médina Baye waaye tamit gën a ñaaxaat doomu sénégalais yi nga xamante ne nii ñu ngi caaxaane seen diini waaye ñu ngi caaxaane seen lislaam naam am na ñuy góorgóorlu waaye ñuy góorgóorlu it bëgg nañ ñu xam ne am na doom yoo xamante ne ñu ngi jiyee ko Amérique ñu jiyee ko Espagne ñu jiyee ko Londres ñu jiyee ko fu ne ngir lan xidmaal Mawlana Sey Ibrahim waaye nag ngir lan bëgg Mawlana Sey Ibrahim kon nag tey ñooñu noonu seen i doom buñ ñëwee tey fii tey kon doomu bi doomu bi war nañu xel ne ndam. Assalamualaikum warahmatullah. Um, my name is Mohammed Yasin. Um, I'm from Washington D.C. Um, from America. Um, I study in the school of Seda Kubra Sise. I study under Ustaz Mohammed Job, and um, I love it here. Um, I'm here to study and finish Quran. I yeah, I'm, I'm here to study and finish Quran. Um, praise Allah and the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and um, I hope that um, my studies are good and we're studying at the masjid on this day to uh, contribute to uh, what Banyas did and help out with everything. And we're grateful for the opportunity with um, Sheikh Ibrahim and Sheikh Mahi, Sheikh Tijani, all the big sheikhs have given us. And um, yeah, and I just, I love studying Quran. Quran is amazing. never study anything better. And, uh, sëñ bi jeex la nga ko. ko jox la comme jox nañ la euh, xale bu Euh, jigéen mu jàng dan la bëggoon a jox kenn ci xale yu góor ñu jàngal al alquran ndax euh, <laughs> lir rijaali nasibu mimma iktasabu wala nisaa'i nasibu mimma iktasabna kon dañ lay jox kenn ku tudd Xuseyna mu jàngal la leen cay aaya alquran subhanallah bismillah xam naa dañ leen di bàyyi mu jàngal leen leen ci ay aaya alquran yu gàtt rek incha allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقظون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون sadaqallahu Allahul macha allah kon xamna ni kon lolou lañu tagato inshallah voilà nañ bu baakha baax mbok téléspectateur Kossy TV li rek moy medinatou Cheikh ibrahim wa deug deug ken du bàyyi waaw ñu ngi waxat ne ken du bàyyi deug deug ba rek mo man lu melni tay duggu ci si bo xamantene ni ne xam Sénégal mosuñ xam Afrique tay nga andi len deug deug ñu lay andi la yu am solo yo xamantene ni nii kenn koo xamante ne nga fi yaroo nga fi amana sax tay mëno ko wax dëgg-dëgg kon ñu ngi ñaanal yàlla ñi nga xamante ne nii ñoo suñu kilifa andi leen fii nii di Cheikh Mouhamadul Mahi Aliou Cissé yàlla na fi yàgg te ànd ak wér waaye di ñaanal yàlla Zeyda Kubra mi nga xamante ne nii dëgg-dëgg moom itam mi ngi jàppante ak moom si liggéey bi ak ñi aju si moom yëpp dëgg-dëgg yàlla Mawlana Cheikh Ibrahim fayante ak yéen waaye nag dëgg-dëgg lu mel nii su amee Cheikh Mouhamadul Mahi Aliou Cissé xam nga ne kenn du wax ne guléet ndax dëgg-dëgg kam mooy wajuram di Seydiya Mawlaaya Cheikh Seydi Aliou Cissé di Baabul Xadara dëgg-dëgg lu mel ni su amee kon dañ koy ñaan laat yàlla kam mooy magam di Seydi Aliou di imaamul akbar imaamu Medina Baye imaamu adduna bi yëpp laay wax sax man di imaam Cheikh Tidiane Aliou Cissé gis ngeen ni nga xamante ne nii noonu la tijjee kaamil yi si fajar gi waye timi gis ngeen eh, timi tout tank yi nga xamantene RAKAM rakam MAMADUL di Cheikh Mahamadul Mahi Aliou Cissé andi na len fi ni tay ci Medinatu Cheikh Ibrahim ñu jàng Alxuraan YALA ba mën a eggéen tey yu melni deug deug ñu ngi ñaan yalla benen yoon fan bu gudd bu and ak wër waye ak mission ci si ci si hadra Mawlana Cheikh Ibrahim di liggéeyam si mamam yalla na suñu borom matalé ko jotalé ko ko kontaan ni bu baaxa baax si oustaz bi nga xamantene ni nii tamit mom lañu fekk fi ni ci si eh, eh, jumaaji andi talibé yi ni bu baaxa baax di ñuyu Amérique américa dëgg-dëgg di nuyu londre di nuyu Australie di nuyu Mali di nuyu Sénégal di nuyu euh, Nigéria képp koo xamante ne tey jii fa rek dañuy bàyyi xel si liggéey bu yaatu bii nii Kossy TV lii la jóg maam ngir lan taxawaayu liggéey bi si Kossy TV si liggéey bi si hadara bi si gàmmu yi si conférence yi si wàcceem kaamil yi lépp loo xamante ne nii liggéey Mawlana Cheikh Ibrahima fas yéene nañ si ànd ak yéen wane leen ni nga xamante ne nii noonu la ko Medina Baye di dundee lii nag commencement la woon rek boo xamante ne nii ñu ngi ko doon def fii si daara jumaa ji incha allahu rabbi lépp loo xamante ne nii jub na si xam leen ne Mawlana Cheikh Ibrahim mi nga xamante ne nii moo jëmmi yàlla ji moo matal lépp waaye lépp loo xamante ne nii dëng na si jàmm bu xeebu bi tey jàkkaarloo ak yéen moo ko doon def di jéggalu si lépp loo xamante ne yàqu-yàqu si ay kàddu ak njuumte rek ba leen ne jaam yu matul lañ bëgg amal seen payu sëriñ liggéey bu rafet rek moo tax wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërë ngeen jëf macha allah macha allah jërëjëf merci jërëjëf ñu ngi am mbégte contentement bu baax a baax di dikkaat si sëñ daara mi nga xamante ne nii moo fi teewal daara Seyda Yaa na Thiam euh, nekk daara joo xamante ne mi ngi nekk fee si daara Rahmati ñu fa fas yéene jox ko ay kàddu moom tamit mu nuyoo comme ni nga xamante ne nii noonu la ko daara yi ñu romb léegi rek defee tamit ni nga xamante ne nii moo nekk ndaw yi mu àndat ñu seet kenn koo xamante ne rek mën nañu ko ubbeelee si laay alxuraan wa asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu yéen mbokki yi ñuy seetaan ci Kossy TV ñu leen nuyu kenn ku nekk si turam ak jëmmam ñu ngi siyaare Cheikh Ahmad Tidiane Cheikh Ahmad Tidiane Niass xalifa ñu ngi koy siyaare di ko ndokkeel di ko ñaanal yàlla may ko fan gudd waxande wér yàlla matal ko mboolem sembam ci pay bi te may ko mucc gànn mucc la ñu ngi siyaare imaam Cheikh Tidiane Ali Cissé di ko ñaanal yàlla may ko fan gudd waxande wér ñu ngi siyaare mbooleem taalibe yi fuñ mën a ne ci xaalam bi ñu ngi sant yàlla bu baax ñu ngi wax alhamdulilah ñu ngi siyaare suñ say sëñ saydaa yaa ne caam di ko ñaana yàlla yàlla yàlla dimbali ko daaximan yàlla jotal ko mbooleem càkkutéefam lii moo ñu ci nàmpal moo ñu ci xirtal moo ñu nàmpal ci alquran moo ñu bëggloo alquran moo yël programme alxuraan ci kër gi teg ko euh, teg ko ci loxoy Mouhamed Sow muy daara ji Mouhamed Sow jël loolu teg ko suñ loxo ñu jiite xale yi ñëw tey ci ubbite jàng kaamil yi ñu ngi sant yàlla bu baax def nañ ko daaw fekkee ko ren ñu ngi gërëm yàlla ñu ngi koy sant di ñaan ñu fekkee ko ay déwéni déwén ànd yokkute ci saayir ak ci baatin ñu ngi wax ne ñun mbokki jullit yëpp ñu ngi leen di ziare di leen ndokkee bu baax a baax a baax di wax ne bés bi bés bi nga xam ne Maulana Cheikh Ibrahim moom la tànnoon di ko jagleel pay bi ñu si jàng alxuraan kon loolu suñ njëriñ lañu ñun ñëpp ñu ngi ñaan yàlla loolu njëriñ mbooleem yiw yi ci nekk ak njëriñ yi ci nekk yan yàlla defal ñu ko mboolem aaju yi ñu si yéene yan yàlla defal ñu mbooleen suñu bëgg-bëgg ci saa at ci baatin ñu ngi gërëm bàyyi ñu ngi ko ñaana yàlla yokku leeraam tax ñu si barkeem wallaay amuñ fayam ndaxte li yëpp moom la moo ñu dimbale moo ñu won ne alxuraan mooy lépp léppam alxuraan la tey bés bi feeñ na ci ndaxte tey fu nekk nit a fay jógee ko di ñëw di teew ci barab bi di jàng alxuraan kon loolu ñu ngi ci sant yàlla bi nga xam ne xéwal googu yàlla boole nañu si te boole nañu si ñu ngi sant yàlla bu baax si loolu di gërëm bu baax a baax suñu sëriñ muy Seyda Yane ni ci am ñu ngi ñu ngi koy ñaana yàlla yokk ko ci saar ak yàlla dimbale ko fi bëgg daara ji àgg yàlla na yàlla ko defal ngi sant yàlla bu baax ñu ngi gërëm bu baax a baax a baax ñu ngi gërëm positif bi mi nga xam ne mu ngi ñu ngi rafetlu liggéeyam di ko gërëm di ko sant ndaxte wax dëgg yàlla mboolem lu pays bi xewle xew-xew ci du jëm ci pay bi rek mu ngi ci góorgóorlu sëñ Moussa bi tey ñu ngi gërëm bu baax ñu gërëm Seydina Aliou Guèye ñu ngi gërëm mbokk taalib yëpp ak fu ñu mën a nekk di wax ne mbooleem aajo buñ si yéene yal na yàlla defal ñu ko waaye yal na Cheikh Ibrahim gërëm yal na Cheikh Ibrahim nangu ñu mama salik ana day bansi salaamaaleykum wa rahmatullah voilà léegi ñu jox euh, suñ benn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 بسم الله الرحمن الرحيم ودها والليل إذا سجى ما ودك ربك رزقك وما قل وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فتردى ألم يجدك يتيما فأوى ووجدك دالا فأدى ووجدك عائلا فأقنى فأما اليتيم فلا تقر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم ألم نسرق لك صدرك وودقنا عنك وزرك الذي أنقد سقرك ورفقنا لك ذكرك فإنما العسر يسرا إنما العسر يسرا فإذا فرقت الأرض فانجب وإلى ربك فارقب صدق الله العظيم الحمد لله ñu ngi sant yàlla bu baax di gërëm bu baax a baax di wax ne ñun ñu ngi ko barkeloo ci alquran ji di wax ne bàyyi ma waxoon ne alquran ñaan na yàlla alquran nekk karaamaam kon loolu feeñ na wax dëgg yàlla fii pay bi fi ñëw xam ne alquran tumurankewu fii xale yaa ngi wut alxuraan ci anam bu rafet ñu ngi sant yàlla bu baax a baax a baax di wax na ñaan googu noonu bàyyi ñaanoon yal na yàlla defal ñu ci cër yu rëy rëy rëy tam ànd na ngër màndeel yàlla ñu ngi sant bu baax a baax a baax a baax ñu ngi fooglu bés bi di wax ne képp koo xam na rek mën ngaa jàng alxuraan ak foo mën a nekk na nga góorlu ci bés bi xam ne sa njëriñ rekk la bàyyi lépp loo xam ne indil nañu ko rek moom pour ñun la moom pare na léppam pare na kon ñun ñoo ci des ñun taalibe yi nañ foo lu bés bu baax ñu góor góorgóorlu ci bu baax ñu ngi wax ne ah, doomu aadama bu nekk taalibe bu nekk war naa ittewoo lépp loo xam ne sa sëriñ samp na ko muy lu baax rek war ngaa fexe ittewoo loolu ah, bokk ci ñu koy jëmmal ñun nag dañoo boo yàlla dañoo boole àndandoor boo xam ne moom lépp loo xam ne bàyyi indi woon na ko rek ci PM bi rek moom jamono bu nekk mu ngi koy jëmmal di ko rafetal muy seydaa Seyda Yane na Thiam ñu ngi koy ñaanal nda wax ne amuñ fayam ñu ngi koy ñaanal yàlla bu baax a baax a baax a baax gannaaw bu ñu ñaanalee xalifa bi ñaanal imam ñu ñaanal suñ suñu Seyda Yane na Thiam suñu sëriñ di ko ñaanal yàlla yokk ko daay man matal mboolem sembam yal na yàlla dimbale ko ba bépp foo xam ne bëgg na ko xeggalee ci mission am ci pays baay bi yal na la defal ko lu kawe njortoom barke Seewu Tiyaan barke Baay ñu ngi gërëm ñëpp ñu ngi sant ñëpp dañuy góor góorgóorlu rek di jéem mm, sànni ay kàddu rek mën nañuy wax ci mbooloo mën ñuy wax ci média waaye dañuy góor góor ñu ngi sàkku si yéen ñaan bu baax a baax ñu ñu leen ñaana yàlla bu baax mbooleem aajo boo xam ne yàlla waaye jaam yàlla xéene na ko ci kaamil yi yal na yàlla faj ko yàlla fañ jàng damm-damm yi saafara feebar yi faj xaajo yi teggi gàllankoor yi ci saayir ak ci baatin te yàlla may ñu ngërmande Cheikh Ibrahim may ñu càkkuteef suñ càkkuteef ci Mawlana Cheikh Ibrahim ama salik ala lay bansi asalaamaaleykum wa rahmatullah a nekk gis ngeen euh, mouvement bi nga xamante ne ni euh, social ñoom si la ñuy dox li ma wax rek ni moo nekk ne Medina Baye seen i ndaw seeni doom day ba Mawlana Cheikh la ñuy roy si wàllu si bépp liggéey si bépp xam-xam si bépp loo xamante ne tey euh, Mawlana Cheikh Ibrahim mi ngi si woon rek defe naa tey doomu Medina Baye ñu ngi si gis ngeen li nga xamante ne ñoom tamit ay ndaw lañ sabab bi ñoom it niñ taxawee si xidmaal Mawlana Cheikh Ibrahim. tey teew neen fii si bisi kaamil alquran kaamil alquran bi. ñi def ñii tey teewee ko ñun ñëpp dara sabab lu ko lu dut na Cheikh ba Niass bu waxtu nawet ju euh, jege siyaan dafay def ay kaamin alquran pour ñaan yàlla pour yàlla indi taw indi ndox si jàmm moo sabab lu lool loolu moo sabab lu kaamin bi kon Mawlana Cheikh Ibrahima Niass inondation bi mu jël nii àddina bi yëpp lay ñaanal ñaanalut boppam kese àddina bi yëpp la ñaanal mooy na tey bu ndox amee keneen koo xam ne foo mën a nekk si àddina danga am mbay mu baax da nga am lu baax ñu nit nag seen taxawaay yàgg na si këri Maolana na Ibrahima Niass commencé neen ko depuis si gàmm gi ba léegi dañuy def ay social dañuy def ay ndimbal ndimbal yi dajee njëkkeewuñ ko fii tey duñ ko mujjee fii bépp xew-xew bu am bu jëm si xew-xew yi na Cheikh Ibrahima Niass wala beneen xew-xew beneen këri diine sax dañuy taxaw foofu noonu pour def liñ mën yëpp si affaire yi social social yi nag ñu bëri dañ siy bëgg di wax ne lu tax su ngeen si dëmmal du ngeen ma oo am na ñu bëri ñoo xam ne dañuy wax ne oo leen ñu ñu jàpp si oo ñu jàpp si waaye kenn amut koo xam ne ni tey taxaw nga tey pour wane na ñun yaa ngi seen gannaaw wala yaa ngi ñuy jàppale lu dut yàlla seen borom ak lu dut Maolana Cheikh Ibrahima Niass mi nga xam ne moo nekk seen gannaaw ñu di ko ànd ak moom si bëgg-bëggam yi ñuy topp. gannaaw loolu aussi ñu ngi santaat yàlla bu baax di sant suñ nijaay mi taxaw damaa xëy tey la ko soog a tey laa ne ko damaa bëgg nga ñëw nga dimbale ma dañuy defar ay mu dagg itteem yëpp ñëw ànd ak man boole si alaj tafaam yi nga xam ne tey vélo la amee ak ñeneen ñoo xam ne ñu bari ñu ngi si gannaaw dañoo xaw a jàpp dem école moo tax ñëwun xam naa ne suba sax lay liggéey bi di gën a yàgg waa xam nga liggéeyal si yàlla moom daanaka jërut di tàggoo ndax kii dana gis ne yàlla ngay liggéeyal kii dana gis ne sa bopp ngay liggéeyal waaye ku ñu xam-xam ne tey lan soog a am deret sax positive yi waaye boo xoolee ba ngeen ñëwee wan neen la ay affiches yu bëri yoo xam ne liggéeyal neen ko si sabab bi yàggul dara dem neen fi Këlma Jëbeer yóbbul suñu bàyyi alaaj Baraam mu kontaan trop ay garab yu baree bëri bëri yoo xam ne parce que dem na si un million sept cent nangam garab yu Europe la jógee ñoo fay dédouanement bi ñoo fay yëpp loolu yëpp nag sabab bi du dara lu dut liggéeyal yàlla liggéeyal yàlla nag koy képp koy liggéeyal yàlla sa bopp ngay liggéeyal ñun nag seen bopp la ñuy liggéeyal képp koo xam ne soxla nga si di dimbalante ak mouvement bi wax boo ñu soxloo rek boo ñu contacté da ñu gis owun si nit yi nag pour mu ñëw dimbale ñu parce que ñun yàlla rek la ñuy liggéeyal bi ñu ko dee def yàgg na numéro yi bu soobee yàlla dinañ ko jox sëriñ bi mu dugal ko si affiche yi bu soobee yàlla képp ku bëgg taxaw ànd si mouvement bi donte du alal sax mais bu ñu liggéey nga oo ñu nga ñëw bokk si xidma yi bokk si liggéey bi dinañ joxe numéro yi numéro yi 822 la 18 60 18 59 77 ku si mën a participer si liggéey nga ñëw aj àllarba gi dañ koy topp ba àjjuma ba jour bu ñu tëj kaamil bi yëpp dañuy liggéey ñu ngi jox suñu nijaay Babacar Niass mu sànni si kàddu waaw 77 822 18 59 numéro boobu képp ku si oote rek soo bëggee jàppalante ak ñun rek danga nga jàppalante ak ñun ndax ñun sabab bi yëpp mooy liggéey rek liggéeyal yàlla ndax ñun li ñu ut yëpp si yàlla rek lañ ko jëmee ñu ngi jox suñu nijaay Babacar Niass mu am ay kàddu yu mu sànni kàddu ñaan ak kàddu ngërmaane bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi رب اصرح لي صدري ويسر لي امري ولا الحقدة من لساني يفقه قولي يا همة الشيخ حدود لنا بهذا المهدر والتحت فيه بنظرة تاتي لنا بزغري وبعد نيجي نيو مبولم ادنا بي ني نيك سي بير ريومي اك ني نيك سي بيتيم ريو ييب واي ديجيتال سي نيو بي كوسي تي في nga xamne bi niñ ko tuddé sen bop ñoy ciosanu fayda bi ñu ngi leen di di leen nii gërëm boo waax si liggéey bi nga xam ne bii ñu ngi koy amal wax dëgg yàlla képp kuy jóg def lu baax ñoom nga ci jàppale ndax ñoom ñoo jiitu ci def lu baax te def lu baax comme ni nga xam ne bii noonu la ko suñu mbokk suñu xarit Cheikh Ibrahima waxee léegi social yi ñuy def nii du dara lu dul joxe ay naan joxe ay lekk te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ci hadis ndax nit ñëwal na ko na ko lislaam bi liggey yu bax yi nga xam bi ñu koy def bari nañ trop mu ne waaw mu ne ko legi ban liggey mo ci gën ci bir l'islam bi nga xam bi mom lañ ay islam khairan parce que so so saraxé wala nga mayé wala nga jox nit mu tukki wala nit dalam dag nga jox ko nit gis nga ne amul yéré nga jox ko mbax ci bir l'islam yatuna na mu ne ko nak legi ay islam khairan mbax yoy yep est ce que amna bu ci bu ci ëpp mu ne ko ay islam xayran mu ne ko it taham وتقرئ السلام على كل من عرفته لقيته او لم الم تعرفه مانام منوكو بان الاسلام مو گن منوكو الاسلام بي گند موي جوخي نيام تي الحمد لله ني نيغي جوخي نام يالا واخنا تي القران كل واشربوا لك لين نان واي لك لين نان سو فكي امون امون امون فيني لك امون فيني ناني لك نان دانا جافي مي جو مي ني ني سو فكي ندي نيغي ديبلاسي دي نيو دي لين اندي لك نان كون نيوم دگ ناي حديث بوك نون نداخ وا جوخونوكو اي اسلام خيران منوكو اطعام طعام منوكو تقري السلام تيميت اك ak niiw ndax nit ki boo oyofut du fekk doo doo doo faale nit ñi ba koo rom koo romb bu ne ala kullu man laqaytu araftuhu aw lam taarifahu képp koo xam ne bi daje nga moom rek niiw ko moo xam xam nga ko wala xamuloo ko niiwoo amut nga ngay xaar nga xam nit ki parce que l'islam tuddiwul noonu maadaama sa mbokk jullit la rek boo ko boo ko rombee niiw ko ak koo mën a doon ak parce que loolu mooy ne tegte la ne yow oyof nga loolu mooy tegte la mbaax loolu mooy tegtale ne tamit l'islam bi nga nekk l'islam bu gën la parce que nit nga daje moom nuyu ko da ngay xam ne kii ëllëg bu buy dajeeg yow la parce que li nga ko indil ah kii daje naag moom démb ma parce que kii ne kon jàmm lay indil jullit ki nga war a jàmm ki nga war a teewaante mooy ki nga xam ne bi moom moo lay indil jàmm loolu loolu mooy loolu mooy mooy l'islam bi nga xam ne bi nit ki bi mu ñëwee laaj ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam loolu la ko wax te loolu di joxe ñam di naan alhamdulilah di ne di ñaanal yàlla yàlla kàttanal leen comme ni mu ko waxee nii amuñu benn ndimbal amuñ benn wéeru lu dul ci gannaaw yàlla ak moo Mawlana Cheikh Ibrahima Niass mi nga xam ne bii il faut que tamit ñu ñu wéeru ci gannaawam pour ko mën a liggéey parce que booy liggéey di xam shawq xam am bëgg-bëgg parce que cafka dafa am solo ci ci li nga xam ne bi moom mooy moom mooy li nga xam ne mooy yàlla bi sax Cheikh Ibrahima sax dafa ñaan yàlla mu ne imaan bi nga xam ne bii ñun am nañ koo pare parce que dafa war ci jullit bi nga nekk nga xam imaan nga gëm yàlla imaan boobu sax mu mel suñ ko gëmee ba pare te xamuñ nuñ koy dundee dafay jafe bàyyi ñaan ne allahumma naa alawatul iman yàlla na yàlla wërsëgal ñu cafkaa gëm yàlla gëm yàlla sax bàyyi dafa dafa ñaan yàlla ñu gëm ko maanaam caf gëm nga gëm yàlla gi ci boppam bàyyi dafa ñaan yàlla gëm yàlla gu am ko parce que bu amee cafka ci ngay ci ngay xam caf caf yi gëm yàlla lan lay saf njëriñ bi ndax nga mën a topp yàlla il faut boo gëmee yàlla itam wax na ne ne nga topp ko moo tax mu nu ala wata taa ak cafkaay topp yàlla tamit 822 18 59 loolu mooy numéro bi nga xamante ne nii dëgg-dëgg ku si jaw rek defe naa da am li nga xamante ne moo nekk taxawaay bi nga si war am yow tamit defe naa ni ma ko waxee rek liggéey Mawlana Cheikh Ibrahim liggéey sa bopp la waaye xidma Mawlana Cheikh Ibrahim xidma sa bopp la si di waxee rek daf laa bëgg a dimbale kon ñi nga xamante ne nii yéen a saxoo di ànd ak Kossy TV yéen a xaar information yi wér te wóor yéen ñi nga xamante ne waxtu wu nekk rek yéen a ngi xool nu ngeen dugalee seen loxo si biir association yi si biir jàppandal yu mel nii kon bés baa ngi noonu association baa noonu sabab baa ngi noonu jël leen seen i eh, loxo jël leen seen i ndimbal jël leen seen i taxawaay def ko fi nga xamante ne moo nekk si association bi ngir jàppale leen ngir lan liggéeyal Mawlana Cheikh Ibrahima ni mu ko waxee mi nga xamante ne nii li muy liggéey si bi rafet na waaye li muy liggéey si hadara Mawlana Cheikh Ibrahima rafet na dañ leen di bàyyee ak nga xamante ne nii moo nekk Cheikh Ibrahima Thiam mi nga xamante ne nii moom moo ànd ak xale yi dikk fii tey si daara ji monti mu yëkkati ay kàddu ñaax ko seen daara yi waaye tamit ñaax ko ñi nga xamante ne nii ñoom la àndal si wàllu yàlla waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi sant yàlla bu baax ànd ak julli ci nant bi sallallahu alayhi wa sallam ah, di nuyu suñu kilifa yi yëpp di leen ziyaare bu baax a baax jiital si nuyoo bi suñu imaam suñu ah, jiital si nuyoo bi suñu ah, xalifa suñu sëriñ muy papa Cheikh Tidiane Niass di ko ñaanal yàlla bu baax a baax yàlla guddal fanam may ko ay yàggal si njabootu Baay Ñas gi yëpp radiyallahu anhu di nuyu suñu imaam. Cheikh Tidiane euh, Serigne Aliou Cissé euh, di ko ñaanal yàlla moom it yàlla guddal fanam lool te yàggal ko fi mayal wér ñoom ñëpp waaw di sant yàlla bu baax Ibrahima Thiam la euh, suñ daara jàngalkatu alquran daara raxmati si daara suñ papa Mbaye Diankha ànd seeg suñ suñ daara Aliou Thiam ñun ñoo nekk mago daara ji ñu ngi sant yàlla bu baax ci bés bi nga xam ne ndolla la si ñun muy bés boo xam ne ndigal ñu ko jotee suñu sëriñ Maolana Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu ànd si ndigal da dem nag ba ci suñu xalifa papa Cheikh euh, Tidiane euh, Niass di ko ñaanal yàlla lépp loo xam ne sëbu ko ci faydu bi euh, ci zaahir ak ci baatin yenn yàlla matal ko ci anamam ni mu ko bëggee yàlla guddal fanam lool. sant yàlla bu baax ndax ñun xam nañ ne lii bàyyi ñu sos radiyallahu anhu yokkute rek lañ ci gis ndolla rek lañ ci gis ndax ñun xam nañ loolu. jamono bu nekk rek ah, bu amee bala muy amaat rek dinañ gis ne am nañ ndollal am nañ yokkute ci suñu wàllu taalibe ci zaahir rek ci baatin lool nag sant yàlla bu baax a baax di ñaan rek ah, kaamil yi lépp loo xam ne jàng nañ ko fi ah, daf nañ ko fi ay dog ñaan si yàlla rek yenn yàlla xasal si suñu sëriñ baa ñi radiyallaahu taala ak njabootam bi yëpp ak mbokki taalibe yi ñëpp ci zaahir rek ci baatin kontaan nañ daal bu baax a baax a baax kontaan nañ bu baax a baax ci bis bi kontaan nañ ci daay man di ñaan jamono bu nekk teew Euh, si suñ daara Aliou euh, comme tey la bés bu njëkk bi euh, daf ñoo jiitaloon pour ñu ñëwaale rek moom mu ngi ñëw si kanam waaye moom lañ ànd ak ci daara ji mooy suñ suñ daara foofu kontaan nañ daal si bés bu baax a baax a baax a baax di ñaanal Kossy TV yéen na yàlla taxawu leen yéen na yàlla dimbale leen xaasatan yéen na yàlla jagleel leen ay may yoo xam ne dootu jeex ba yomal xiyaamati waaye Medina Baye Niass yéen na yàlla wàccee fii ay Kossy TV Kossy TV daayiman ilaa abadin abidin waaye nag xaasatan ñi nga xam ne ñooy bidaay bi muy ñi nga xam ne mooy ñoom Baye Moussa ak euh, ñi leen ëmb di leen ñaanal yàlla bu baax a baax ñun amuñ benn sikki sàkk euh, ne Baye Niass gërëm na li ñuy def waaw ndax xam nañ ne njabootu Baye gi gërëm nañ te bu njabootu Baye gi gërëmee rek ñoom gërëm nañ ñu ngi kontaan bu baax a baax daal di sant yàlla bu baax a ci bés bi dañ koy yàkkamte lool nag dëgg yàlla alhamdulilah waaw waaw waaw comme dafa joxe ndigal euh, sàkku digal pour ñu jox benn xale mu jàng tuuti si alxuraan rek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 sadaqallahu alazim waaw ñu ngi sant yàlla bu baax comme daf ñoo bett sax waaye comme daf ñoo sàkku pour ñu euh, jàllale kenn si mbokk taalibe yi mu jàng tuuti alquran xam naa moo tax moom mu jël foofu waaye yàlla dimbale ñu tamit saar bi mu jël euh, tënk na lépp waaw tënk na ni yonentu ñëwee sallallahu alayhi wa sallam bàyyi wu dara ni yonentu ñëwee sallallahu alayhi wa sallam waaye tënk na ni suñu sëriñ Mawlana Cheikh Tidiane radiyallahu anhu ñëwee waaye tënk na lépp suñu sëriñu sëriñ yi mooy Baay Ñas radiyallahu taala anhu saaxibul faydat ni ñëwee loolu ñu ci sant yàlla bu baax a baax yàlla moo ñu ko jagleel ñu ngi kontaan daal di bëggee bu baax a baax di ñaanal ñëpp di sàkku seen ñaan ama sala bi asiisil tey nag ñu ngi waa si daara joo xamante ne nii kon nañ fi daaw jëlee fi xam-xam jëlee fi njëriñ te dikkaat nañ fi muy suñ buntu sëriñ di suñ lépp di Mawlana Cheikh Ibrahima Fall yàlla na yàlla fayal ñu ko moom mi nga xamante ne ni su buntam lañ mën a awee tey pour liggéey Mawlana Cheikh Ibrahima si Kossy TV ñu jàkkaarloo suñ sëriñ suñ soppe suñ xarit suñ lépp maam Baye Fall gannaaw bi la fekkee fii nii yan taxawaay daara ji amaat ak yan ngay ñaaxaat julit yi nga xamante ne ni Mawlana Cheikh Ibrahima maa ngi leen xewal gu mag gii nii ausubillahi min asheytan rajim bismillahi ñu ngi julli ci yonent bi sallallahu alayhi te di ñaan yàlla yokkal ko ndimbal ak xéewal mboole mi saxaabaam di ko ñaanal xalifaam Cheikh Ahmed Tidiane radiallahu anhu di ñaanal loolu itam seen xalifa ñoom ñaar di Cheikh Ibrahim radiallahu anhu alhamdulilah del si xaat nañ beneen yoon ci ni nga xamee ne noonu la si Ibrahima di ñaaxee ñi nga xam ne ñoom lay xàndat di leen yóbbu ci yàlla tang bu nekk bàyyi ngi seet yoon woo xam ne yoon wu rafet wu baax wu sell mu di ci jaar moom di ci jaarale taalibe yi cheikh ibrahima radiallahu anhu bim handek goor yalla yi nga xamne ñom la yalla yàlla ak mom dafa dekkal seen nopp yi di len waxe ci xam-xam be ñi mëna a bind sen tour mënuñ ko jang sax mujj nekk di ay foudé ngir lan tang bu nek mu nan yonent bi ni la dan def ak sahaba yi lu nek su ñewé mu woné ci na yonent bi dan def da fay sax da def lolu motax hando talebe ak baye danaka hando jang kat la ak kamuy jangal jangale kat ak kamuy jangal ñom seen dund yépp ci jangal lañ ko def rawatina nak ba baay xamee loolu bugg cee dugal mag ñi daf leen commencé di leen jàngal saxaabaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bañ xamee fatul akbar nañ ko daan jëfandikoo mu nettali leen Omar ibnul Xataab nekk ca Medina Saariya nekk ci Saam jiite guerre Omar toog ci miir na di gis lay xew ca saam loolu fatul bar moo koy maye bàyyi di nettali itam ne saariya dafa toog ba yàgg rekk kéefër si di ko fexeel moom mu ngi ca saam gisul li fexe ca gannaaw xeero Omar daal di wax foofu yaa saariyal jabal yaa saariyal jabal saariya daal di jaar ca gannaaw xeer wa rek gis la fa xew mu rey ña fa nekkoon del si xaat loolu moo ko jox ndam bañ jógee ko foofa ñooñ mën nañoo xam ne saxaaba yi yonent lañ ba fa yonent bi so jógee soriwut mu indi leen Seex Tijaan ak i saxaabaam ne Ali ni dafay dox ca Tamasina ci ab toolam ca Algérie Seexu Tijaan nekk ca Faas muy promenade rek daal di gis ceeg ak tàndarma rek mu ne lii sama sëriñ ci xëy ne ko ca kër rek sànni ko rekk mu ñëw ba faas dal ci kanam Seexu Tijaan loolu tamit bàyyi jàngal ko mag ñi mag ñi déggee ci nag ne gannaaw Seexu Tijaan dafa fexewoon ba taalibe mi fu nekk mu nekk fa ak ñoom loolu fees seen xol ya ba nëbbutu xamatut bàyyi itam fexe ba wétal loolu ci diggante moom mag mi ba nga xam ne mag mu nekk rek fu mu toll rek mu ngi jàkkaarloog Cheikh Ibrahima radiyallaahu anhu mu def ci ñoom fatul akbar jaarale leen fa jaarale seen saxaaba yi ba ñu xam mu jaarale fa ñooñu ba ñu xam fatul ne fu ñu dem rek xamatul xiiraay seen digganteeg Cheikh Ibrahima radiyallaahu loolu boo ko buggee firi dangay gis gone goo xam ne dafay toog moom a gone ni moom. ñuy wax loo xam ne mag ñi bëgguñ koo dégg wala ñoom bëgguñ mag ñi dégg ko su ko defee bu mag ñooñu ne noppil ba mag mi jàll bon gannaaw si yàlla yonent bi mooy xalifaam li mu xam yépp jox na ko ko te yàlla wax ñu ci alxuraan ne fu ñaar fu ñett nekk moom mu nga fa moo leen ñeenteel fu lu juróom nekk moo leen juróom benn lu ëpp loolu ak lu ko xees fu nekk mu nga fa te Baye wax nañu ne yonent bi lim xamoon li yàlla xam yëpp daf ko koo jox desewul dara lu dul yàlla am nga bon yonent bi xam loolu moom itamit bi mu ko xamee moom itam garde ko daf ko joxe bon loolu bunt boobu ci la Baye jaar. ba mag ñi demee ba gis ne seen digganteek baay hijab xamatut fa kii daay xamatut fa fuñ toll baa ngi leen di gis ñoom it ñu ngi gis baay booba liggéey nag bu ñaaw mënatut a xam seen diggante kenn dootu def dara loo xam ne da nga ragal baay dégg ko kenn dootu def loo xam ne danga ragal baay gis ko lii ba ca mag ña xeggee rek ci la liggéey sellee moo tax ñoom itamit yàlla dimbale leen bañ xaw yoonu bàyyi na taxawut foofu waaye lépp lu baax def na ko moom Cheikh Ibrahima suba yi nga xam ne nit ñaa ngi koy jàng baay ñaari yoon la ko daan def su xëyee ci bëccëg bi mu jàng suba maanaa loo xam ne àjjuma jot mu wàccee bu gudd jotee itam mu tari ko loolu mag ñi roy ko ci loolu bàyyi wan leen ni itam nag noo gën a defee lu baax rek yàlla gën laa jox ndax jàngal leen xadisul xursi bi yonent bi wax sallallahu alayhi wa ne doomu aadama laa yazaalu abdi yataqarrabu ilayya nawaafilal xayri ahbabtuhu fa ida ahbabtuhu kuntuhu bàyyi di leen jàngal loolu ne nawaafilul xayri farata moom pour mucc ci meru yàlla bon da ko def ndax dangay mucc ci meru yàlla boo defee farata waaye naafila moom moom ngay def yàlla xam na yow pare nga ci farata yi farata doyaloo sëg xër ci yàlla su ko defee nag boo xëree ci yàlla bay yokk def ay naafi la yàlla it xër ci yow ba teg jox la loo xam ne joxut ko keneen koo xam ne melut ni yow ci xër bon foofu la bàyyi jaara mag na bi bàyyi di def suboo di ko def ñaari yoon ci bés bi xam na ñoo xam ne xamuñ ca suboo ba di ko def ci bés benn yoon waaye xam na ñoo xam ne dem nañ bay naafi laa kaamil bi ñaari rakk bon mbooleem mag ñi xandoon nag bàyyi ñoom xamoon fatu lakk akbar soo buggee maandu ndax koo ci xool rek asxaabi kan nu nujuumi ay maxtadaytum ihtadaytum loolu la yonent bi wax sallallahu alayhi wa sallam suma saxaaba yaa ngi mel ni biddiw koo ci roy rek mu yóbbu la fa nga bëgg a xegg nga jub bàyyi itam gannaaw xalifaab yonent bi la sallallahu alayhi wa sallam saxaabaam yi fokk ñu mel noonu bon moo tax ñi àndoon bàyyi xanaa koo ci téye wut aw lefam waaye koo ci téye aw lefam da ngay moo gën këma bàyyee ko soo demee ci keneen ne kii moo gën a saf suukar moo gën a jub moo gën a baax bon nii la bàyyi yaree bon ñu ngi ñaan yoon wii nga xam ne moom la ñu bàyyi teg ci ñi koy def par suba mu dem ba mu yàgg mu indi xaat beneen buntu muy lan di sas nit ñi. ñuy jàng-jàng yoo xam ne ci alquran niñ koy defee kenn ku nekk da nga yëg ne danga koy defee ci xanam goo xam ne daanoo ko def ci bési xat mi lu dul ñetti bis yi mbooleem koo xam ne du nga taalibe danga seetlu ne ni ngay jàngee alquran ci ñetti fan yii doo koy jàngee alquran ci lu dul ñetti fan yi su ko defee nag loolu ci lim la yóbbu mooy lan soo demee ba gis ne sa fan yi dafa leer lool dafa baax lool man nga cee yeddee sa bopp ba yokk la nga daan def ci yeneeni fan ci lu ñetti fan yi man ngaa dem ba nga xam ne soo daan def subo par semaine nga dem ba di ko ba koy def ñaari yoon ba koy def ñetti yoon ba di def loo xam ne sax mu ngi tolloo góorgóorlu nit ñi ak seeni bëgg-bëgg bon fan yii bàyyi moo ko rëddoon daan ko def ba mu fi jógee ko Seydi sise saxal ko gannaawam ba mu fi bàyyee ko El saxal ko gannaawam ba mu fi bàyyee ko Cheikh Ahmad Dam ba mu fi bàyyee ko Cheikh Ahmad Tidiane kon ñu ngi ndokkeel Cheikh Ahmad Tidiane ci ni muy waxee ni muy jëfee daf ne diisoo naa ak sëriñ bi jàpp na moom bés naa jot li taalibe yi. bés yi nga xamne ne ci lañ wara jang bon japp gi jàpput ko mo min tilqaa'i nafsihi déedéet waye lolu nim ñu ko waxe lam ñu waxe tam non la xamul dara lu muy def lu tuti ak lu reey lu ne dana dem ba ci sëriñ ba ak mom waxtan ci be mom su ko tok ci ak ñom waxtan ci ak mom ba sey bi jox ko xalaatam suy dox rek boo seené rek xamal ne xalaatam sëriñ bi santaanab sëriñ bi ci la nek bon loolu luñ war a royale ci moom imaam gannaaw buñ ko ñaanalee yàlla gudd fan sax ci loolu ñu ngi koy ñaan danga leen di wax ni ci liñ ne na ñu mañ cinq loolu dañuy jàngee ci moom ni nit bu nekkee kilifaam dafay jël lépp jox ko ko su ko defee man ixtadaa aaliman laqiya llaaha saaliman koo xam ne roy nga boroom xam-xam boo taseeg yàlla dangay mucc bon moom itamit fi mu ne lépp lu muy def rek ndigalal xilifa la moo tax ba xalifa ci boppam lam koy digal loola mooy la bàyyi nekkoon bon moom imaam lu mu nekk rek la bàyyi nekk la kem ni nga xamee ne baayam mas sa def lu dul lu ko bàyyi digal moom itam du def dara lu ko lu xalifa defal loolu ñu ciy sant yàlla te ñuy ñaan taalibe yi nañ roy ci loolu nañ déglu xooteem bi nag walla nañ déglu jottali xooteeb xalifa nee xalifa nee na fépp fu nit nekk ci àddina bi deb jullit rawatina de taalibe mu ngi lay xoo ci ñetti fan yii su ko defee foo mën a nekk ci bitim réew boo jàngee joxe na ay numéro yu téléphone joxe na rajo Fayda joxe na téléphone moom joxe na si eh, mbokkam taalibe bi ñuy wax Cheikh bi tey su ko defee boo jokkoo ñoom rek dana xeg si bon fépp fu nit nekk loolu yokkute la ndax loolu daanul xam suñ ko waxee noonu bu daan xam itam daanu dem ci eh, seen mbit ñu yaatal ko yaatal bu toll noonu ba nga xam ne njàng mii nga xam ne Cheikh Ibrahima nee na law si si ëttu suma sooboon faydu bii dana daj àddina bi bon fi mu nekk nii soob na ko mu ngi daj àddina bi soob na ko njàngam kaamel mi dana daj àddina bi ndax imaam wax na tudd na ay réew te sax ne na ñeeñ tudd tam képp koo xam ne rek dégg nga xoote bii rek a ca jàngal ne bon danañ def ñetti fan yi danañ daj àddina bi bon ñu ngi ñaan yàlla lépp loo xam ne bàyyi xéene woon na ko ci yan na ko yàlla jox moom bàyyi ci xéene jooju mu xéene jàmm ñeel ko jaami yàlla yi yan na ko yàlla jox loola ba jox ko lu ko raw ñun itamit yan nañ royee ci bàyyi ba nga xam ne lépp loo xam ne ñu ngi koy def dañuy yaatal xéene ji ñu def comme waa ja nga xam ne moo waxoon ne yow yàlla yan nag ma yërëm maag yonent bi bu ci teg keneen yonent bi ne yaa xatal yaatu bon bàyyi dafa yaatal moom ci boppam nii la ko daan defee ci dundam nii la ko gaa yi di defee ci gannaawam ba bésab tey bii imaam wax ne yaatu gi dikk na ba mu wax ko ñu dégg ko ba daj na fi mu ne àddina kapp bon ñu ngi ñaan xiiwal gi nga xam ne moom la bàyyi yéene àddina bi yan na ko yàlla dajal àddina bi kapp yaara bi fu nit nekk yan na sax di jàng alquran te yàlla buñ xem ci jàng alquran gi waaye yan nañ ko jàng xam njëriñal jàng gi yan nañ fexe dégg li nga xam ne moo nekk ci alquran ci ndigal ki tere ñu jëfee ndigal yi comme na ko yàlla diglee bàyyi tere yi comme na nga xamee ne noonu la ko yàlla tere te képp koo xam ne def nga dara ci loolu yan na ci yàlla jox cër bu rëy bàyyi mi nga xam ne mooy ki nga xam moo ñu roy te itam noonu la nag koo xam ne def nga dara yàlla dana ca bindal tiyaabo lu baax yàlla dana la bindal ku la ca yàlla bindal la ca tiyaabo bon ñu ngi ñaan te ñaan gi dafa baax rek waaye lu baax lii ñuy def yàlla dana ci bindal Cheikh Ibrahima tiyaabo ñi nga xam ne ñoo ko xuutu itam fa xalafa min baadihim xalfun warisul kitaaba loolu la baay bàyyi ñoo xam ne dañoo seet li baay bind li baay wax ñu nekk ci seeni guddeeg seeni bët yëpp ñu jeexal ko ci xemuñ foofu di soññ nit ñi ba nit ñi ñu bëgg ñu jeexal ñoom itam seen i guddeeg seen i bëccëg ci li bàyyi nekkoon doon ko def doon ko wax bon ñu ngi ñaan di xoo mboolem jaami yàlla yi yann yàlla def xoo xoote bii ñu dégg ko te buñ ko déggee yan nañ ko xuyu te buñ ko xuyoo yan nañ ko defee ni nga xamee ne mooy sunna si ko bàyyi sampee te yan nañ ci jëriñu yenn ci yeneen i aji yàlla jëriñu ci fekk alxuraan a ngi nekk di alxuraan yenn jaami yàlla yi di ko jàng te it bu ñu ko jàngee yéen nañ xam njubak alquran ba nga xam ne képp kenn su waxee alquran ay wax su noppee alquran noppi su doxee alquran a dox su jékkee itam alquran a jékki yal yàlla defal ñu loolu bañ nekk alquran juy dox yàlla bu ñu xem ci jàng rek waaye jàng gi njëriñ laa ngi ci waaye itam jàng geeg miin gi dafay dem ba nga xam ne dafay euh, takk ci suñ xol yi takk suñ làmme yi ba buñ noppee sax mel na ni ñu ngi jàng comme li baay wax Imaam Assane ne ko soo déggut may jàng sax xamal ne maa ngi jàng bon ñu ngi ñaan yàlla yan nañu yàlla fayal Cheikh Ibrahima yan nañu yàlla fayal Cheikh Ibrahima yan nañu yàlla fayal Cheikh Ibrahima moom ci boppam moom la kaamil la wàcc ci loxoom boo xam ne na yàq mu xoote majlisul ala li suunil islaam yi ñu daje bañ dajee ay taw jihaatam ci lañ demee ba di jàng alquran ci rajo yi nu yaatal googu ba alquran ñu koy jàng ci rajo yi jërëjëf Cheikh Ibrahim suñ demee ba nga xam ne alquran ñu ngi koy jàng ci jukki yi di ko jàng ci xat mi mu indi yeneen ñetti fan yoo xam ne nit ñi danañ ci dund dundin woo xam ne xatoo ci alquran alquran dund dundin woo xam ne moo raw niñ koy dundee ci yeneeni fan yu dut ñetti fan yi ñu ngi ñaan yenn yàlla def suñ dund yëpp nekk mujj nekk ñetti fan yi yenn ko yàlla def yaa def ba nga xam ne suñ dund yëpp dafay nekk njàngam alquran su ko defee nag ñu dem ba nga xam ne suñ jëf yëpp dafay nekk ndigali alquran luñ bay yëpp dafay doon lu alquran tere loolu yàlla mën na ko yana ko yàlla ñu ngi sant mboolem ñi nga xam ne ñoo teew mm, ak ñi nga xam ne bëgg nañoo teew waaye xam nañ ngànt nañ ko jàng ci seen kët ya su ko defee yónnee comme ni ko imam waxee borom rajo bii it ak télévision bii ñu ngi leen di ñaanal yàlla yal na leen yàlla gën a samp yal leen yàlla gën a dëhëral yal leen yàlla gën a samp yal na leen yàlla gën a dëgëral nit ñi daan nañ jooy wax affaire rajo ndax duñ wax mbiram bàyyi lu bëri bàyyi na leen da xam rajo su mu nekk nii alhamdulilah Kossy TV ngi nii Fayda ngi nii yeneen rajo ngi nii yeneen télévision a ngi fii ñu ngi ñaan yàlla loolu yan na ñu yokk ba jëmm yi nekk jëmmi xam-xam yan na ñu nekk ba nekk jëmmi xam-xam nga xam ne taalibe bàyyi fu mu waxee ñu xam ne kii taalibe bàyyi la fu jëfee ñu xam ne kii taalibe Baay la lii de la Baay bëggoon moo tax mu dëkkoo dëkkooloon ci noppi mag ñi jàngale ba mag ñi ñëpp xam waaw ku mënta bind itam danga nga xam ne alxuraan kat nangam ak nangam la wax doo xam fu ko wax waaye da xam ne sama baay nee na nangam ak nangam ñoom ñëpp mag ñu loolu lañ dëkkee di def def joo xam noonu la bon ñu ngi ñaan bu buñ demee ba rajo yi xam rajo yi yenn ñu yàq yokkal xam-xam boo xam ne dafay dund comme na mag ñi daan dundee xam-xam te xamuñ ko woon ci man koo jàng ñu indil ñu rajo yi indil ñu télévision yi indil ñu bind yi ba nga xam ne danañ mën a jàng suñuy doom mën a jàng su ko suñu mën a jàng xam-xam bi du dund euh, jikko yi di gën a rafet di gën a baax ba xam ne balaa ñu ñuy taseeg yàlla ci kanam Cheikh Ibrahima radiyallahu anhu Cheikh Ibrahima danañu puugare woon ne ñii mooy ñu nga ñoom laa forme yan yàlla def loolu yaram Cheikh Ibrahima moom doy na sëriñ waaye ñun itam yan nañ yan nañ ma taalibe bon kenn ku nekk lépp loo xam ne yaa ngi koy def rek seetal ba xam ne ndax lii la ko bàyyi daan defee ndax nii la ko Seydi Aliou Cissé daan defee Cheikh Serigne Mbaye nii la ko daan defee demet ndax mag ñi nii lañ ko daan defee su fekkee noonu la rek defal ndax xam nga ne ñoom duñ juum yenn yàlla defal loolu yaara bi ñu ngi leen di sant ñu ngi leen di gërëm te di leen ñaanal yàlla yan na ngeen sax di gën di jëm kanam ci zaahir ak ci baatin ci barke bi yonent yàlla Muhammad بارك صلاة الفاتحة برك بايك بايم برك مبلم صالحيني اللهم صل على سيدنا محمد وسلم جرى جنجب الحمد لله macha allah jërëjëf mbokk téléspectateur Kossy yi dëgg-dëgg suñu xol sedd na waaye tamit nag xamaat nañ leneen loo xamante nii xamuñ ko woon waaye yokkuwaat nañ yeneen ngi yokkute ndax tey kaddu gi nii ku ko dégg rek xam ne kaddu Mawlana Cheikh Ibrahima Fall mi nga xamante ne nii mooy waajuram mooy léppam ne daara ja nekkee feenee ci këram noonu la yaatalee mbir mi ndax tey ñun mën nañu wax ne yokkute am na ndax si diggante bi ren amaat nañ ci ndimbalal bàyyi amaat nañ beneen daara fee si saam joo xamante ne nii internat bu am solo la muti monti mu ngi fay liggéey lu am solo di ko fa yalla momit dara jot non yalla magal jot benen dara ndey dara ji nga xamantene tay mo nek fi ci kër Cheikh Rama Fall tay mu ëmb dara yu bëri tay tay si ëtt Mawlana Cheikh Rama Fall kon deug deug sëñ bi Fall kontaan nañ bu baax a baax saa soo waxee nit ñi ko sa bo waxe nit ñi gëna xamar sa bo waxe nit ñi gëna a alquran nit ñi gëna a bëggaat bàyyi deug dëgg yëpp nak sa wajur sa lepp mom moo ko nandalal waaye ñun timis si lañ ko bëggee ci mom lañ ko xamé mo tax tay bo kaddu deug deug suñu xol dafay fees te suñ xol dafay seddaat ndax dëgg-dëgg puukare lañ si yow sa kàddu ndam la su ñun sa kàddu yokkute la su ñun ndax dëgg-dëgg am kilifa mu di la waxal di teg si yoon bi loolu yëmbut kon dañ lay ñaanal nga yàlla nga yàgg fii te ànd ak wér ndax yàgg fii mooy suñ ngëneel sa yàgg fii mooy suñ ndam sa yàgg fii mooy suñ puukare ñun ñëpp ndax tey ndam la su ñun saa buñ gës duggee si Medina bàyyi si pee bi si xew bu amunta am rek bu gëstoo gis la suñu xol dafay sedd dafay sedd lool moo tax loolu waxtu wu nekk télé bi mu ngi la siy ñaana yàlla bu baax a baax a baax a baax a baax a baax foo kàddoo ñu kontaan foo waxee ñu kontaan foo daagoo ñu kontaan kon daal amuñu sa fay waxtu wu nekk ñu ngi yeesluwaat suñu mbëggeel si yow ñu ngi yeesluwaat suñu mbëggeel si yow yàlla nga fi yàgg te ànd ak wér kontaan nañ bu baax xam naa kon yéen ñi nga xamante ne ni yéen àndoon ak ñun di seetaan tey eh, ah, ah, kaamil yi nga xamante ne ñetti fan la si àllarba alxames ajjuma fas yéene ni waxtu wu nekk rek suñ ñëwee dem si beneen daara kon nag commencé woon nañ ko si imaamul akbar ñu ngi ko tëjee joxante ak yéen rendez ba suba si heure bi incha allahu rabbi bépp daara boo xamante ne gis nga ñu te egsi guñ si yow rek baal xel ne danañ ñëw suba incha allah egsi yow gannaaw suba dinañ ñëw egsi si yow ndax Kossy TV jaaxaan la képp koo xamante ne nii ñëw nga fi andi fi barakaatu jërë ngeen jëf